mardi 6 août 2024 mbokk yi amati mbégte bu baax a baax euh, retrouver leen ci seen euh, matinale d'information matin bonheur comme ni ñu koy defee chaque matin euh, di leen nuyu bu baax di leen ñaanal yendoog jàmm yéen ñi nga xam ne da ngeen tàmm ànd ak ñun bés bu ne tey ji nag Kaja daa tardé ñëwagul Kaja xaw ma fu mu féetee moom ñoo ngi koy nuyu bu baax moo tax it maa ko fi utul le temps que muy ñëw xarjata ñaas Euh, tey jii nag nekk bés bu xam ne aussi dinañ fi euh, dalal euh, Samba Dang moom nekk député foofu ca assemblée nationale bokk ci Pastef également dinañ waxtaan ak moom tolluwaay réew mi actualité bi xam ngeen foofu ci assemblée nationale également coow li bëri na ndax dinañ ko tas wala duñ ko tas loolu yëpp dinañ ko yaatal ak moom waaye balaa boobu dañ koy nuyu honorable maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci matinal bi di matin bonheur Euh, anche billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu taala wa sallam euh, sëñ Maal ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax euh, di nuyu waa réew ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew mi am mbegte lool lool lool ñëw donc ci émission bi di ñaanal mun Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wër di ñaanal kilifa diine yi nekk ci biir réew mi yëpp yàlla may leen jàmm suturaal leen sàmm leen Euh, boo teg ci yoon wi euh, euh, li réew mi ci ci ci yoon woo xam ne ñoom moom lañu ko bëggee. Mm-hmm. di nuyul sa sëñ Moustapha Mohamed borom ñiboo ji. Mm-hmm. yàlla yàggal ko fi lool yàggal ko suñu kanam. Mm-hmm. di nuyu waa département Mbirkilaan di nuyu waa saalum yëpp waa région de Kaffrine yëpp. bàyyiwuñ kenn képp kuy kilifa diine nekk Saalum rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax mhm, mhm. am na solo honorable euh, Samba Dang dinañ gën a yaatal ak moom ci kanam tuuti ci actualité bi waaye dinañ waxtaan ak moom aussi ponk yi nga xam ne moo fi jëm moo fi tukkee ci wàllu actualité lu ci mel ni Magal Touba mhm. waaye tamit visit euh, vice président gambien fii ci réew bu Sénégal xam ngeen jamono bi mu ngi fii ci réew bu Sénégal c'est que na démb sax waxtaan ak euh, premier ministre bu réew bu Sénégal di Ousmane Sonko waaye tamit dinañu wax ci li nga xam ne aussi moo xew foofu ca promotion de l'économie euh, di direction bu nekk foofu ca ministère euh, bi nga xam ne kii di Aline John moo ko yor ak euh, coow bi nga xam ne am na fa diggantam ak kii di Jéggi Diop waaye tamit waxaat waxtaan ci wàllu accident yi nga xam ne mu ngi am si jamono boo xam ne ñoo ngi waajal lii di màggalu Touba ak ni dogal yi nga xam ne autorités yi moom la ñu bëgg a jël hmm. waaye balaa boobu dañuy dem xool actualité loolu yëpp tënkal leen ko balaa ñuy dem ci li nga xam ne moo moom la mu ngoog actualité bi comme ni ñu leen ko waxee dañ koy euh, doore ak euh, kii di euh, Jéggi Diop Jéggi Diop nag xam ngeen ne jamono bi coow li jëm diggante moom ak ministère boobu nga xam ne foofu la amoon benn direction ñu koy wax promotion de l'économie sociale et solidaire moom nag daanaka démb dañ ko woolu woon foofu nga xam ne mooy brigade de recherche bu Kër Massar moom Jéggi Diop. ginnaaw loolu nag nangu na amal lii di passation de service am te tey jii bu 10 heures jotee ci boobu les ministères moom Diégui jóob nag ginnaaw loolu mu jàpp ne rek euh, dañ ko bëgg a buntu xatal mu nekk loo xam ne lu doy waar la honorable dama la ci laaj sa xalaat euh, coow li aussi doy na waar balaa ñuy gën a dugg ci waxtaan bi ci ponk yi nga xam dañ koy waxtaanee jëm ci actualité yow noo gisee coow li Diégui Diop daal mbiram doy na waar. Euh, merci beaucoup Mal. Mm. d' abord maa ngi nuyu le ministre Aliou Dione Badara. Mm. Euh, qui est un collègue de parti un, un frère de parti euh, di ko ñaanal yàlla liggéey bi mu nekk dina ci gën a euh, li mu ciy xaar yal na ko yàlla defal lépp loo xam ne wàllum économie la ci biir réew wàllum koom-koom am ci xalaat sell yu yu yoo xam ne wax dëgg yàlla su ko appliqué réew mi day jaar yoon su ko appliqué aussi jigéen ñi mag ñi xale yi ñëpp nañ ci giseen bopp boo koom-koom gu bëri am ci am ci biir réew mi ndax dañ ko dénk ministère bu am solo mm-hmm. par rapport ak cette passation de service man je me dis que ni euh, y aucun problème parce que euh, am na fi passation de service yu bari yu jàll. Mm-hmm. et nit ki suñ la dénkee aussi bés dina ñëw ñu ne la joxeel euh, ñu jox ko sa morom parce que ñu tous nous sommes des sénégalais. mbir mi du ndono. du mm-hmm. dara du ci sant lañ koy joxe. du ci mm-hmm. taar lañ koy joxe. du ci leneen lañ koy joxe. mais gis-gis la. bëgg-bëgg la engagement la. nit ñi peut-être bu ñu jàppee ne yow mii war nañoo mën a jox sa morom. mu mu doxal li nga xam ne loolu la war a mun a doxal mm-hmm. jàpp naa ne da war a mun a ñëw ñu saytu na nga yore woon mbir mi mm-hmm. soo suñ ko saytoo ba pare nga nga joxe ko mm-hmm. maintenant nga ne nag doo ñëw yaakaar naa ne loolu munta jàll ndax réew mi dafa am yoon euh, ni nga mun a waxee ne dañ maa war a jox muy sa àq noonu lañ la war a mun a saytoo muy sa devoir aussi waaw ah, lii sa droit. Mhm. mooy ñu fal la ci réew mi ndax am nga droit bi tu es un sénégalais comme tout le monde. waaye bu ñu la falee ba pare lii sa devoir aussi mooy bés bu ñu la follee. Mhm. nga war a mun a joxe. Mhm. ñu saytu la xool boo xam ndax ya nga yoroon baax na. jàpp naa loolu képp ko xam ne ci biir réew mi nga nekk. Ah, waroo ko mun a def muy lu diis daal. dëgg la am na am na am na solo ba tey dañuy ah, wëy ci actualité également bokk na ci aussi maggalu Touba xam ngeen ne ren nag dañ koy ñoo ngi koy célébrer vendredi 23 août loolu nag di dogal boo xam ne aussi. jël nañ ko ginnaaw bi ñu gisee weer bi mhm. tey jii sax xalif euh, général euh, de mourides euh, honorable ñoo koy xaar ngir mu janook mouride yi muy loo loo xam ne aussi chaque année dafay am mhm. muy lu am solo foofu mhm. ca Touba di màggalu Serigne Touba di aussi loo xam ne ñoo ngi koy xaarandi waa d'abord di ñaanal si Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wër yàlla may ko wër gu yaram bu baax a baax a baax baax mu yàgg di jiite lii nga xam ne moom mooy tarixa bi Eh, di ñaanal njabootu sëñ Tuubaa yëpp yal na yàlla sutural mm-hmm. eh, di ñaanal waa Daaru Xuddoos donc di ñaanal sëñ Muntaxa eh, donc sëñ Moustapha borom niveau ji mm-hmm. di wax ne yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm mm-hmm. bés bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm lépp lu ci waaye ñaan yàlla na ko yàlla nangoo jàmm Euh, di gën a ñaax état bi rek ñu gën a góorgóorlu ndax dañoo nekk ci nawet mhm. màggal ci nawet day xaw a jafe surtout mois d' août nga xam ne day day bari taw mhm. donc toutes les dispositions nécessaires xam nañ ne état bi incha allah rabbi dina ko jël mhm. lim ci mën yëpp dina ko def bu soobee yàlla mais nañ ci gën a góorgóorlu rek ba nga xam ne lépp loo xam ne ndox la surtout le ministre de l' assainissement Cheikh Tidiane Dièye kii euh, wax dëgg yàlla ko xam ne muy góor bu baax a baax ci liñ ko jox li mu ci mën ak li mu ci mën yëpp mu ngi koy def moom ak ses partenaires techniques ses conseils techniques yëpp nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax mm. parce que ndox surtout bu taayee mën na indi leneen loo xam ne euh, ci war gu yaram day xaw a doy waar mm-hmm. donc nit ñi aussi nañ leen jàppale ndax sénégalais yi ñoom ñoom lañ fi nekkal donc lu ñu bëgg rek dañ ci war a gën a góorgóorlu bu baax a baax incha allah rabbi mm-hmm. am na solo honorable euh, dañuy wéy bi yoon nag xam ngeen ne comme ni ma ko waxee sànq vice président bu réew bu Gambie mu ngi amal ngan fii ci réew bu senegal mhm. démb sekk na waxtaan ak euh, kii di euh, premier ministre euh, di Ousmane Sonko mhm. am na nag ponk yu bëri yoo xam ne waxtaanee nañ ko jëm ci coopération diggante ñaari réew yi jëm ci wàllu immigration clandestine waaye tamit xoolaat li nga xam ne moo jëm ci garab yi nga xam dañ koy dagg diggante ñaari réew yi loolu yëpp bokk na ci ponk yu ñu waxtaanee dañuy dem déglu li nga xam ne moom la ñu suñu naataango Fatima Tall jëlal démb ci boobu le dajee mhm. bi commenté honorable vice président bu réewum Gambie moo daldi di amal tukki nemmeeku bu ñaari fan fii ci ndakaaru mu daldi rekk rek amal ab séance de travail diggante mag njiitu gouvernement bi di Ousmane Sonko foofee ca building administratif ay question yu bëri nag ñu daal di ko fay waxtaanee bokk na ci rek daggum garab yi mbiru énergie ba ci sécurité transfrontalière mbiru napp gi ak yeneen i question Gambie ak Sénégal ah léegi na ñaari réew la waaye benn nit lañ moo tax progrès li ñu waxtaanee yëpp waxtaan nañ si mbiri ah, sécurité waxtaan nañ si mbiri nappa gi waxtaan nañ si mbiri transport waxtaan nañ si beneen institution bi nga xam ne mooy Sénégalo Gambien secrétariat boo xam ne ñaari réew yi taxawal nañ ko depuis 1972 waaye ba léegi amoon na ay ay gàllankoor yoo xam ne mu ngi leen a arrivé ci yenn point yi nga xamante ni moo féewale ñaari dëkk yi nag premier ministre bi di Ousmane Sonko daal dina xamle ni dinañ ci indi rek ay coppite waaye nag daal dina xamle ni lu waral loolu mooy cadre institutionnel bi nga xamante ni jamono jii dañ kaa daal di négligé. ci waxtaan yooyu nag lañu càmbar poñ yi nga xam ne yitteel nañu yitteel na suñu naataango Gàmbi yéen ñëpp yàgg ngeen dégg ñuy wax. bi gouvernement bi toogee ba léegi euh, gis ngeen lu bëri ci communiqué conseil des ministres ñuy wax suñu yitte ci euh, àll bi àllu Casamance bi particulièrement nga xam ne ñu ngay dagg garab yi di yàq euh, àll bi ba nga xam ne bu ñu ci jógul rek mën na am dina yàq lu bëri foofu nag dañ ko séq ak suñuy naataango Gàmbi ndax ci frontière ba la moo tax waxtaan am solo parce que pour ñu mën koo régler faw rek ñu ànd ci lënkaloo ci ak suñu mbokku Gàmbi loolu nag ay accord amoon na ci kenn ku ne jël na ci ay résolution ci wàllu institution yi wax nañ jëm ci secrétariat permanent bi nga xam ne moom moo war a doxal dëgg-dëgg mbir mi te ñu gisoon ni xawoon naa taxaw te li ko waraloon bëri na am na ci ay aspect matériel am na aspect financier am na yeneen tukki nemmeeku bu ñaari fan bu vice président bu Gambie nag lu ko wundu mooy daal di gën a ñoŋal relation économique ba ci sécuritaire ñoo daal di am diggante ñaari réew yi mbiru dem beeg dikk bi tamit ak mbiru énergie bi desul benn yoon ginnaaw daal di woon na bokk rek ci seeni ay débat suñu sukkandikoo ci kii di premier ministre nag daal dina xamle ni réew yi nga xamante ni ñoo daal di frontalier dañoo war a rek daal di jàppalante ngir seen développement daal di mën a yomb. mu ngoog mu nekkoon euh, premier ministre réew bu Sénégal ci euh, euh, tukki nemmeeku bi nga xam ne vice président réew bu Gambie mu ngi koy amal honorable fii ci réew bu Sénégal muy loo xam ne aussi lu am solo diggante Gambie ak Sénégal xam nañu jamono bi sax gis nañ ne quand même wàllu immigration bi aussi doon bokk na ci ponk yu ñu waxtaanee ndax bëri na ay doomu réew bu Sénégal ñuy dem aussi ci réew bu Gambie ngir dem bitim réew déjà sa jàngat par rapport ak visite tukki nemmeeku boobu nga xam ne vice président bu Gambie mu koy amal jamono bi fii ci réew bu Sénégal Euh, d'abord euh, ñu ngi koy rafetlu euh, di dalal jàmm vice président bi nga xam ne moom moo jógee Gambie ñëw Sénégal di féliciter le président Ousmane Sonko qui est le premier ministre du Sénégal nga xam ne moom moo ko dalal ñu ngi koy féliciter bu baax a baax ci dalal bi mu ko dalal moom wax na ko ci biir waxam vice président Gambie bi mhm. nee na Gambie ak Sénégal ñaari réew la waaye benn nit la mhm. Euh, kon man jàpp naa ne comme ni ko Cheikh Anta Diop doon waxee mhm. euh, da ngay gis benn diplomate gambien ak benn diplomate sénégal wala benn autorité gambienne ak benn autorité sénégalaise toog di waxtaan mhm. euh, kii teg benn interprète en français en keneen ki teg benn interprète en anglais français mhm. ñuy waxtaan to alors que bu ne ko na nga def mu ne ko maa ngi fi donc coopération bi lu ci war a njëkk mooy wàllum làkk bi maanaam war nañu mun a am fulla am fayda goo xam ne Euh, làkk yi nga xam ne colon bi moo ñu ko fi bàyyil maanaam colonisateur moo ñu ko fi bàyyi muy français di anglais ñu teg ko feene bu ñuy waxtaan suñu biir mm-hmm. ñu waxtaan suñu biir ndax benn nit lañ te benn nit moom buy waxtaan ak boppam bu fekkee naxul boppam mm-hmm. jàpp naa ne jarul muy jël làkku jàmbur waaye na jël làkkam waxtaan ci euh, beneen coopération bi mooy wàllum économie mm-hmm. te ñaari réew yi dañoo war a mun a euh, góorgóorlu lu baax a baax a baax ci wàllum économie mu nekk loo xam ne dëgg lay doon ci ñoom ba nga xam ne ñaari askan wala benn askan bi mm-hmm. ndax Sénégal ak Gambie benn askan la mm-hmm. benn askan bi gis seen bopp ci li nga xam ne moom la nguur yi di doxal mm-hmm. beneen bi mooy euh, coopération ci wàllum mbéy dañoo war a gën a lu ñu ne Gambie ci wàllum mbéy surtout mbéyum ceeb war nañ ci am coopération boo xam ne ñun Sénégal ñun Gambie li ñu soxla yëpp ci ceeb ñun ñoo koy béyal suñu bopp moomal ko suñu bopp di ko jaay ci biir réew mi mu nga xam ne duñ jéggaani ceeb feneen mhm. ak yeneen mbéy yu yi nga xam ne gàncax yi nga xam ne wàllum euh, lu wel ni wàllum euh, kii fruit mhm. war nañ ko mën am coopération parce que man xam naa zone boobu bu baax a baax a baax mhm. euh, lii nga xam ne aussi moom mooy coopération ci wàllum sécurité dañ cee war a góorgóorlu baax a baax a baax a baax su mm-hmm. boobaa aussi yàpp naa ne premier ministre na ci waxtaan ak moom mm-hmm. te loolu aussi bu ñu ko amee ñaari réew yi dañ koy mën a sécuriser bu baax a baax ndax Sénégal mm-hmm. ak Gambie benn réew la mais du du du ñaari réew benn nit la comme ni ko waxee mais beneen mooy euh, wàllum garab yi wàllum al alam bi dagg garab yi waaw wax dëgg yàlla bi war nañ cee waxtaan bu baax a baax a baax a baax a baax ndax Sénégal ak Gambie dañoo dañoo jegewantewuñ dañoo bokk dañoo jaxasoo dëgg tey boo traversé Gambie dugub biir Bignona. Mhm. surtout zone jibi Djibidione bi mooy ci frontière bi. waaw dañuy gis garab yi ni ñu koy daggee. te nit ñi mën nañoo daggee biir Sénégal dugg biir Gambie. Mhm. te boobaa bu fekkee coopération bi amul lënkaloo bi amul diggante bi rataxul su boobaa kon ñun suñu foore bi daanaka dañ koy li ñuy wax dañ koy piller. Mhm. maanaam dañu koy jël te ñun duñ ci mën dara te duñu amal jeexital. léegi nag coopération bi dina tax bu defee loolu buñ ci jógee li nga xam ne mooy wàllum daggum garab gi ñu gën koo. bàyyi bu baax a baax a baax a baax a baax ndax sa participe à la désertification te tey ñun Sénégal fore bi ñu desee dëgg dëgg dëgg dëgg mooy forêt Casamance bi boobu mm. ñu ko ñàkkee rek daanaka désert total la ñuy am mm. zone de tampon bi Gambie la mm. donc ñoom bu ñu war a waruñoo mën a nangu comme ça ñuy dagg forêt bi biir Casamance di ko indi biir Gambie di ko exporter. Mhm. surtout euh, nañ ma jéggal bëgguma tudd kenn. Mhm. mais am na ñoo xam ne ñoom vraiment seen seen xel màcc na ci loolu. parce que man xam naa ci dara. Mhm. j'étais en Casamance jàngale naa fa juróomi at. donc gis naa bu baax li nga xam ne moom la ñu doon wax. donc man jàpp naa ne foofu la premier ministre war na ci gën a insister bu baax a baax a baax a baax hmm. ba nga xam ne cette coopération là dinañu mën permettre ñu aar àllam gi hmm. dinañu mën a permettre ñu aar àll bi dinañu mën a permettre ñu aar garab yi loolu daal wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi koy ngi koy xaar bu baax a baax muy lu am muy lu am solo moom vice président réew bu Gambie jamono bi nekk fii ci réew bu Sénégal amal tukki nemmeeku ba tey ci actualité bi dernier point actualité mooy jëm ci wàllu l'accident yi xam ngeen ne ministre bi nga xam moom la ñu dénk euh, wàllu yoon yi di El Malick Ndiaye xamle na nag dinañu amal benn conseil interministériel jëm rek euh, ci apporter ay solution ci phénomène boobu honorable nekk phénomène aussi bu bu bu sonnal jamono bi gis nañ accident yi bëri lool moom ministre bi xamle ne dinañu amal benn conseil interministériel ngir indi ay solution nu mu gën que yaa ngi koy wax sànq li fi xewoon ci wàllu tabaski loolu aussi euh, nan nga ko gisee ak ni nga xam ne noonu la gouvernement bi taxawee ngir apporter ay solution jëm ci dem bi ak dikk bi. waaw muy secteur bu bu bu bu bëri problème. Mhm. Euh, man jàpp naa ne euh, bokk naa ci député yi nga xam ne dañoo plaider bu baax a baax a baax a baax pour des condition de travail mhm. yu ñoŋ ngir chauffeurs yi xam nga lu tax ma wax ko. Mhm. parce que képp ku xëy wala nga wàcc chauffeur moo la yóbbu wala chauffeur moo la indi te raar na nga dugg ci kër ñu ne amul chauffeur ndax en général yow mu am sa oto sax chauffeur nga te bu ñu xoolee seen condition de travail dafa ne condition de travail yu doy waar c'est très tey nga dajeeg nit ci kaw tali bi nga laaj ko fiche d'embauche am mu woon la ne dañ ko embauché c'est très ñu ci bëri dañ lay jël nii rek. du am dara waaw du am dara loo xam ne moo la lié. Mm-hmm. ak ki nga xam ne moom ngay liggéeyal. Mm-hmm. donc chauffeurs yi di liggéey ci condition yu méttee métti métti métti métti. te gis nga liggéey le travail nous écarte du vice et de l'ennui. Mm-hmm. mu ñu war a jëriñ mooy euh, weg ñu daf ñoo war a fekk maanaam aar ñu. ba nga xam ne yenn yi duñ ko soxla. ba ñu gis ci suñu bopp. kon man jàpp naa ne. li ñu war a njëkk a def mooy protéger le travailleur. gis nga liggéeykat bi chauffeur bi. bu xelam dalee xalaatul dépense xalaatul yaayam feebar pour lu mu koy faje xalaatul papam feebar pour lu ñu koy faje xalaatul doomam feebar pour lu ñu koy faje xalaatul néegam mu ngi senn ndax nawet lañ nekk parce que amul lu mu jënd seng wala lii wala lii mais li muy liggéey mu gis ci boppam ba nga xam ne aar nañ ko weg nañ ko su boobaa buy dawal dina dawal ak sérénité muy benn ñaareel ba mooy oto bi jàpp naa ne aussi la oto bi di liggéey bu fekkee dañ koy dellowaat ci oto bi oto bi dina nekk dans d'excellentes conditions parce que moom loolu mooy jumtuwaay bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ñun ñëpp ci moom la ñuy wu. ñetteel bi mooy yoon bi parce que yoon bi aussi bu fekkee aussi na mu war a baaxee baaxewu ko jéey yu bari aussi mën na cee jóge ñeenteel bi mooy client bi ci boppam maanaam ki nga xam ne moom mooy fay lépp ndax client bi mooy fay mm-hmm. yoon bi ñu defar ko mm-hmm. ndax boo xoolee euh, tur bi taxe des usagers routiers mm-hmm. nga xam ne taxe boobu la ñuy jël di ko def fonds boobu di ko jox feera FERA di entretenir route yi. Hmm. FERA li ñu koy jox yëpp ci taxe boobu lay jógee. Hmm. taxe boobu ñu ngi koy jëlee ci gasoil beeg essence beeg lépp. Hmm. dajale ko ba pare jox ko FERA. donc kon client bi mooy fay loolu. client bi mooy wëlbatikuwaat fay paasam chauffeur bi gis ci boppam transporteur bi gis ci boppam oto bi gis ci boppam. donc client bi lépp moo koy fay mm. kon man jàpp naa ne client bi aussi dañu ko war a jox àqam ba nga xam ne li mu bëgg yelleefam dinañ ko jox mm. parce que ñun ñoo ko ci tubaab ñu ne le client est mm. comme le client est roi war a mën a gën a góorgóorlu ci client bi gën koo mën a jàppale loolu nag c'est ensemble mm-hmm. bu ci manqué rek mm-hmm. sa morom day des mm-hmm. moo tax ça c'est problème systémique boo xam ne war nañ ko mën a defar mais li mu yore njëkk mooy Malick Ndiaye. Mm-hmm. ak le le kii. Mm, euh, euh, waaw c' est le ministre des transports et des infrastructures donc ñaar yooyu la boole ñoom ñaar war nañu mën a toog lëlu mm-hmm. xool bu baax a baax a baax ñett yooyu noonu mm-hmm. lañ lañ ciy agiré ba nga xam ne bu ñu indee ay mbir ñoom ñaar yëpp day jaar yoon parce que on doit en synergie le ministre seulement mënut a liggéey bàyyi le des infrastructures il faut ñoom ñaar ñu dajaloo lënkaloo xool lu xam ne lii bu ko tegee ci kaw yoon bi dina jaar yoon chauffeur bi gis boppam mm-hmm. oto bi baax parc automobile bi ñu defar ko mu baax a baax a baax mm-hmm. su boobaa man jàpp naan lu bëri na wàññeeku insha allah rabbi mais maa ngi ñax chauffeur yi aussi nañ gën a góorgóorlu mm-hmm. parce que gën a góorgóorlu mooy lan mooy jumtuwaay bi ñuy liggéeyee mm-hmm. ñoom seen teranga la donc bu yàqoo ñoom la yàqool donc bu ci amee dara loo xam ne naqari na Sénégal yi seen rakk la seen doom seen i mag ñoom ñoo ci am leen naqari donc war naa mën a jàpp ne war nañ ci mën a góorgóorlu bu baax a baax ñenn ñi solution quand même gis nañ moo lan moo waral loolu est-ce que dafa fekk ne jafe-jafe yi gën a bëre yi nga xam ne moom la gouvernement bi fekk ci réew mi comme ni ko premier ministre euh, Ousmane Sonko di waxee. xam nga taal bu tëë tàkk wolof moo ne taal bu tëë tàkk. Mhm. fu nekk nga koy wale. Mhm. instant yi on cherche des solutions par rapport à des problèmes mhm. il faut toujours en chercher pour pouvoir régler les les, les problèmes mhm. boo trouver benn solution fatt fenn mhm. après beneen problème génnaat nga defaat conseil interministériel waxtaanaat parce que réew dañ koy pencoo su ngeen ko pencoo rek mën ngeen am ay décisions yu baax yoo xam ne su ngeen ko appliquer mu jóg ci te réew moom duñ jóg ci di ko pencoo ilaa yow mi diin ay conseil interministériel dina am parce que loolu parti politique bi di PASTEF nekk député foofu ci assemblée nationale dinañu yaatal ak yow ci kanam tuuti assemblée nationale waaye tamit wax ci coow bi nga xam ne euh, polémique bi nga xam ne am na jëm ci euh, ginnaaw kàddu yu premier ministre Ousmane Sonko yëkkati jëm ci li nga xam ne mooy voile loolu yëpp dinañ ko euh, yaatal ak yow ci kanam tuuti balaa loolu nag dañuy dem xool xool li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëyee tey ji ci talaata ji ñëwaat gën a yaatal waxtaan bi ak suñu invité di Samba Dang bokk ci parti politique boobu di PASTEF dañ koy doore ak yéenekaay bi di euh, La Tribune moom dafa daal di ñëw ci euh, kii di Bougane Gueye Dany moom Bougane Gueye Dany nag euh, dafa ñëw ci déclaration jëm ci situation socio-économique réew mi moom nag mu jàpp ne ki nga xam ne mooy premier ministre Ousmane Sonko bi wax état de ruine jamono bi moom Bougane Gueye Dany nag lu mu bëgg mooy kii di Ousmane Sonko mu wax vérité askanu Sénégal mu jàpp ne ne loolu nag moom la ñuy xaar ci kii di premier ministre ñëwaat na itam li nga xam ne moom la Ousmane ko wax noonu la fekkee situation réew mi jamono bi loolu yëpp mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci yéenekaay bi di La Tribune. beneen yéenekaay ba tey di l'observateur moom tamit euh, dafa daal di ñëwaat ba tey ci li nga xam ne mooy euh, tolluwaay réew mi l'observateur daal di ñëw ci rapport bi nga xam ne moom euh, rapport de la DPE Sénégal ak piège bi nga xam ne moo nekk ci nouveau choc économique bi rapport boobu nag daal di génne ay incidences yoo xam ne. dafa jëm ci crise russo-ukrainienne ak tension géopolitique bi nga xam ne moo fa am ak cours du pétrole risque yi nga xam ne moo am ci boobule wàll ak baisse 50 pour cent production pétrole ak gaz loolu yëpp boobule rapport daal di ko génnee waaye ba tey euh, yéenekaay bii di l'Observateur ñëwaat na itam ak euh, li nga xam ne kii di euh, DG bu Premier Bet bi nga xam ne dañ ko jàpp foofu ca aéroport AIBD ndax moom nag dafay dafa yoral xaalis réew bu Sénégal moom Joris Dinkel euh, nekkoon nag ci yoon ngir jóge ci réew mi ak famille ñu daal di ko jàpp foofu ci aéroport euh, AIBD loolu yëpp mun ngeen ko fekk itam nu mu gën a yaatoo ci yéenekaay bii di L'Observateur beneen yéenekaay ba tey ci euh, talaata ji di L'As quotidien L'As dafa daal di ñëw ba tey ci kii di premier ministre réew bu senegal di Ousmane Sonko ak Euh, président de la république basiru Diomaye Faye mu ne nag ñaari communication yu wuute ndax communication président ak communication kii di PM bokkuñu ay ay style noonu la ko daal di tuddee yoo xam ne ci mbir euh, yu bokkul la ci nguur gi loolu yëpp mun ngeen ko fekk itam na mu gën a yaatoo ci yéenekaay bi di las waaye ba tey ci coowalu bi nga xam ne aussi moo am ci polémique bi am autour du voile las wax na ci imam yi ak prédicat euh, prédi katër yi ñoom itam euh, ñoo ngi jàppale ba tey euh, kàddu yi nga xam ne premier ministre yëkkati na ko loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a ci yéenekaay bi di L'As Quotidien beneen yéenekaay ba tey di Libération Libération dafa daal di ñëw ci premier bet euh, bi nga xam ne nag jamono bi coow dafa daal di am ndax affaire de fraude fiscale la ñu wax ak détournement de deniers publics lu toll ci douze milliards ci suñu ay koppoor lañ fa sàcc kii di DG bi di Joris Dutel euh, moom dafa nekkoon ci yoon bëggoon nag génn réew mi ñu daal di ko waa DIC ñoo ko daal di jàpp foofu ca AIBD euh, ginnaaw bu mu bëggee jógee ci réew mi ndax nag dañ ko jàpp lu jëm ci euh, comme ni ma ko waxee fraude fiscale ak détournement deniers publics moom DG boobule entreprise du Premier Bet nag nekkoon ci yoon bi ngir jógee ci ngir jógee ci réew mi génn waaye mujjul mujjul antu ndax waa DIC ñoo ko daal di interpellé foofu ca AIBD. beneen yéenekaay ba tey di euh, source A source A nag dafa ñëw ci wàllu immigration clandestine ndax euh, jamono bi nag am nay doomi réew yu Sénégal yu nekk. foofu comme ni mu ko waxee yu nekk bitim réew daanaka ci réew naar yi di am ay jafe-jafe nag seen ay mbokk ñooy yuuxu toll nañu ci san 120 sénégalais yoo xam ne jamono bii ñoo ngi yuuxu wàllu ndax dañoo nekk ci ay jafe-jafe te ñi leen jàpp nag xaalis lañuy ñuy loolu yëpp euh, source a ñëwaat na ci nu mu gën a yaatu waaye tamit ñëwaat ci li nga xam ne mooy liggéeykat ay AIBD yi nga xam ne jamono bi ba tey gisooguñu seen i ay seeni i salaire ñoom nag euh, mu nekk loo xam ne ñoo ngi euh, woo ngir ñu bàyyi leen xel loolu itam source ah yaatal na ko bu baax a baax ci xëtam bu njëkk beneen yéenekaay ba tey di euh, l'info l'info dafa daal di ñëwaat ci audition bi nga xam ne ñoo ngi ko doon amal démb foofu ca gendarmerie bu Kër Massar ak passation de service bi war a am tey ji jéggi Jóob moom euh, démb dañ ko convoqué woon 11h ba 18h waaye bu mu génnee moom Jéggi Diop nangu ne dina def euh, tey passation de service am ci boobu boobule direction nga xam ne yoroon na ko euh, moom Jéggi Diop nag dafa suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi bu mu janoo ak ñi nga xam ne ñooy enquêteurs yi. xam leen ne nag kii di ministre bi nga xam ne mooy ministre de tutelle am di Alioune Dione Euh, daf ko maanaam daf ko metron au frigo loolu nag bokk na ci lu kàddu yu mu yëkkati waaye tamit mu jàpp ne ne dafa utiliser mbir mi comme wàllu politique la loolu yëpp bokk ci ay kaddu jéggi Diop 11h ba 18h ñu koy auditionné foofu ca euh, euh, ci brigade bu Kër masaar moom jéggi Diop nag nangu na ginnaaw bu mu génnee dina amal lii di passation de service tey jii bu 10h jotee. beneen yéenekaay ba tey ci. talaata ji di l'enquête l'enquête dafa daal di ñëw ba tey ci dissolution assemblée nationale nee na nag euh, Diomaye euh, président Bassirou Diomaye Faye Euh, saisir na conseil constitutionnel noonu la ko yéenekaay bi waxee ndax euh, lu jëm ci dissolution boobu nag euh, président dafa bëgg a xam dat bi nga xam ne moom la war a tas assemblée nationale bi ngir ñu amal lii di élection loolu itam yéenekaay bi ñëwaat na ci sekk waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy yëngu ci boobule wàll loolu itam mun ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci yéenekaay bi di l'enquête Walf Quotidien daal di ñëw ci prochaine élection législative yi moom nag nee na jamono bi le projet à l'épreuve de liste lu jëm ci contra contradiction potentielle yi nga xam ne moo am loolu itam Walf Quotidien daal di ni si indi waxtaan bu yaatu waaye tamit ñëw ci situation économique bu mu jàpp ne kii di Bougane Gueye Dany daal di nag euh, weddi kaddu yi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko wax na ko jëm ci situation réew mi loolu itam Walf Quotidien yaatal na ko bu baax ci xëtam bu njëkk mun ngeen ko boobu les beneen yéenekaay ba tey di les échos les échos daal di ñëw nag ci limogeage directeur général bu ONAS di docteur Cheikh Dieng moom nag ay ñoñam ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom génn nañu ñoom itam ñoo ngi accusé ñi nga xam ne ñooy autorités yi ndax euh, jàpp nañ ne ñoom allié lañu ci coalition Diomaye Président ñu ci ni nga xam ne noonu la ñu jëlee seen euh, njiit bi di docteur Cheikh Dieng ci bopp ONAS loolu itam yéenekaay bi yaatal na ko bu baax a baax ba tey yéenekaay bi di lee Échos ñëwaat itam ci wàllu euh, tàggat yaram bala Gaye 2 Eumeu Sène euh, nekk loo xam ne combat bu ñuy waajal la loolu itam jox na ci xalaatam ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu làmb loolu ba tey mën ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci yéenekaay bi di Les Échos beneen yéenekaay di Sud Quotidien Sud Quotidien dafa daal di ñëw ci polémique bi am ci coowalu voile bi nga xam ne nag euh, premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko nee na yéenekaay bii du Sud Quotidien nee na état mu ngi ci terrain bu dangereux terrain boo xam ne bu ci duggee daal euh, du du mën a génn kii di Alioune Tine af bu Afrikajom Center nee na état dafa war a veiller lépp lu jëm ci sérénité ak privilège itam dialogue ngir ñu mën a éviter débat yu mel noonu loolu itam yéenekaay bii du Sud Quotidien yaatal na ko bu baax a baax ci xëtam bu njëkk mun ngeen ko fekk ci biir page intérieure di yéenekaay bii du Sud Quotidien beneen yéenekaay ba tey di euh, le quotidien le quotidien daal di ñëw ci pôle urbain urbain kii di Abdoulaye Sylla la daal di fësal nekk ci voie boo xam ne nag yéenekaay bi wax ne dina métti lool ngir mu génn ci ndax euh, waa Cour de comptes ñoo ngi dénoncé financement euh, yi nga xam ne moo am ci travaux travaux yooyu waaye ba tey ak li nga xam ne moom la. jot def moom Abdoulaye Sylla daal yéenekaay bi nee na jamono bi ngir mu génn ci mbir mi dina nekk lu doy waaye ba tey yéenekaay bi ñëwaat na itam ci polémique bi am ci euh, voile bi maanaam muuru euh, ñi nga xam ne dañoo war a jàngee ci yenn lekkool yi lig des imams ñoom ñoo ngi jàppale kii di premier ministre Ousmane Sonko loolu itam yéenekaay bi fësal na ko ci xëtam bu njëkk euh, mën ngeen ko fekk nu mu gën a yaatoo ci biir yéenekaay bi di Le Quotidien beneen yéenekaay ba tey di bés bi le jour moom euh, daal di ñëw ci ci visite bi nga xam ne kii di vice président bu réew bu Gambie mu ngi koy amal fii ci réew bu Sénégal euh, kii di premier ministre Ousmane Sonko ci kàddu yu mu yëkkati nag moom lu mu bëgg mooy daal euh, réew yi nga xam ne ñoo sëkk su région bi daal di booloo doon benn waaye itam loolu nekk loo xam ne moo gën ci réew yooyu loolu di ay kàddu kii di premier ministre Ousmane Sonko. waaye ba tey yéenekaay bi ñëwaat na itam ci kii di Guirassy ak abbé André Latyr Ndiaye jëm ci voile bi nga xam ne moom la ñu wax euh, jëm ci l'école yi loolu nag euh, nekk loo xam ne yéenekaay bi ñëwaat na ci ci atum 2009 kii di abbé Latyr Ndiaye dafa réagiroon jëm ci offense Wade contre église waaye tamit ak ministre de la communication euh, bi nga xam ne dafa monter au front 15 ans après yéenekaay bi nee na André Latyr Ndiaye daal di attaqué ministre de l' éducation di euh, Moustapha Guirassy loolu itam yéenekaay bi yaatal na ko bu baax a baax mun ngeen ko fekk ci biir page intérieur di bés bi le jour. mu ngoog mu nekkoon lu yéen kay xëyee tey jii ci talaata ji euh, ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu actualité comme ni ñu leen ko waxee ganu matinal bi di Samba Dang bokk ci Pastef nekk euh, député foofu ci assemblée nationale moom lañ doon waxtaanal sànq lu jëm ci ponk actualité bi waaye dañuy woyal ba tey waxtaan bi ak moom euh, honorable déjà coow li d'abord mooy assemblée nationale bi nga nekk gis nañ sax ñu ne est-ce que assemblée nationale président mun na ko tas léegi am déet Euh, est-ce que jàpp nga ne jamono bi jot na ngir ñu tas assemblée nationale est-ce que yow am nga ci ay informations par rapport ak li yéenekaay yi wax. Euh, d'abord euh, permettez-moi euh, de remercier le président de la République et son son premier ministre. le président Ousmane Sonko ci initiative bi ñu jël barke démb. Mhm. mooy dimanche. Mm par rapport ak la journée de l'arbre. Mm reboisement boo xam ne métti woon na trop. Euh, donc ñu jël ko jël mango def ko ci li nga xam ne moom la ñu waroon a planter. li mhm. ci woo sénégalais yëpp que bu nekk na jël benn ba ñaar ba ñetti mango euh, jëmbat ko këram. Mhm. fexe mu baax. Mhm. parce que jëmbat baax na waaye pérennisation bi moo gën a baax. mais loolu bu weesoo aussi danga nga may permettre ma gërëm toute la population du département de Birkelane mais surtout gërëm le gouverneur de la région de Kaffrine. Euh, gërëm le préfet du département de Birkelane nga xam ne ñoom ñoo tànn Birkelane pour la région de Kaffrine mu abrité woon journée de l'arbre boobu le ministre euh, le secrétaire d'État au logement à l'urbanisme et au logement Momad Talla Ndaw ñëw jëmmal bés bi dans la région de Kaffrine à Birkelane ñu nekk ci journée bu métti parce que wax dëgg yàlla dafa taw veille bi taw journée bi ci biir taw bi sax lañ dem di jëmbat garab yi dans la forêt classée de Birkelane qui fait 8100 hectares mhm. ci biir forêt classée bi lañu nekkoon euh, doon doon jëmbat oto yëpp ngiroo mu métti trop mais ñu leen di masawu coono euh, di leen gërëm leen sant leen wax ni wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñëw bi ñëw Birkelane et que ñu itam nañ pérenniser donc cette journée là lépp lu ñu fa def nañ ko gën a gën a pérenniser mhm. Euh, yaa ngi koy wax léegi par rapport à la situation à l'Assemblée nationale mm-hmm. euh, ku bañ daaw mm-hmm. su nangoo ren mm-hmm. c'est parce que am na lu tax ñun bu ngeen xoolee nu sommes très conséquents par rapport à nous-mêmes depuis le 14 septembre 2022 on a dit à cet état que réglement intérieur bu assemblée nationale baaxul ñu ñu déposer pour ñu changer règlement intérieur bu assemblée nationale demul fenn parce que dañ ko bloqué au niveau de la présidence de l' assemblée nationale. parce que il faut nit ñi xam leen loi boo amee initiative man tey soo ma mun initiative loi. Mhm. dama koy jël déposé ko ci table président de la assemblée nationale. su ko neexee du passé foofu parce que bu convoqué bureau bi rek ne donc votre demande est recevable rek dañ ma koy delloo jeex na ñu koy tax ñi rek sànni ma mhm. ñun yàgg nañ koo dénoncé yàgg nañ koo wax. Mhm. et bi ci mujj mooy premier ministre Amadou Ba bi mu war a ñëw assemblée nationale notre collègue Guy Marius Sagna da ko ne bul ñëw assemblée national ndax yow la la war a wa may nga ñëw assemblée national dooleel la pour nga ñëw assemblée nationale nekkul ci biir règlement intérieur bu assemblée nationale donc waroo fee ñëw mais ñoom ñoo nekkoon au pouvoir ñoo amoon majorité mu ñëw def déclaration de politique générale am ak la ci topp yëpp donc bi ñu demee ba nguur gi changé maanaam bi ñu demee ba état bi changé régime bi changé régime bu bees bi mu ñëwee constitution bi mooy premier moom bu ko falee war naa def déclaration de politique général waaye tënk ko ci diir maanaam waxul ne dans un mois dans deux mois dans trois mois dan quatre mois dans cinq mois léegi ñi nga xam ne ñooy wax nag ñoom ñoo dem ca biir règlement intérieur assemblée nationale bu njëkk ba ñu ne dans trois mois la ko def dans les quatre vingt dix jours mais règlement intérieur bu bees bii nii nekku ci ci la le camarade collègue Guy Marius bindaat encore na mu defoon Amadou Ba bind ko le président Ousmane Sonko ko bu fi ñëw ndax li lay permettre nga ñëw fii nekku fi le président Ousmane Sonko tontu ko moom itam à travers donc sa page Facebook ne ko bu soobee yàlla kon du ma fa ñëw tant que loolu changé wuñ ko bu ñu ko changé rek dinaa ñëw mais tant que wuñ ko duñ ñëw diggante bi mooy la veille bi mu génnee réponse am le dimanche le lundi la waroon def débat d'orientation budgétaire parce que nii moo a lépp lundi bi ñu war a defee débat d'orientation budgétaire ñoom itam ñu ne comme premier ministre nee na tant que changé wuñu règlement intérieur nañ profité ci débat d'orientation budgétaire bi dàq ko muy lu graaw nag parce que débat d'orientation budgétaire dafa bokk ci les normes de l'UEMOA dafa bokk ci li nga xam ne ñun dañ koo signé ak UEMOA ne ko dañ koy respecté te dafa bokk ci liy natt budget ndax budget bi baax na wala baaxul maanaam bu ci amul budget boobu mën nañu xam ne budget bi xaw naa doy waar kooku am réew jàpp naa ne ay question politique war na mën a tax loolu kon c'est une réponse moom lañu def noonu c'est une réponse bi ñu def noonu mm-hmm. mais bi ñu defee réponse politique boobu noonu ñoom seen bopp ñoo dem ba ci biir avec donc le président de la République qui est la clé de voûte de toutes les institutions mu waxtaan ak le président de l'Assemblée nationale mhm. ne ko nag waxaatal sa gars yi ñëw à la raison parce que ñoom ñoo nekkul ci dëgg ñoom ñooy ñi nga xam ne règlement intérieur bi ñëpp d'accord nañ même société civile d'accord nañ règlement intérieur bi baaxul ndax la war a indi premier ministre foofu nekku ci ci le président Assemblée national wootee groupe parlementaire yi groupe waxtaan ak ñoom groupe bi majoritaire muy groupe parlementaire Benno Yaakaar d'accord ne ay léeg dinañ teg table bi règlement intérieur bi waxtaan seen biir xool nu ñu koy càmbare ci lañ demee euh, donc groupe parlementaire bu ne yóbbu ñetti nit muy neuf mhm. ak non inscrit yóbbu benn nit muy mhm. dix mhm. ñu dem toog ak yenn techniciens yi xool boo xam la nga xam ne nekku ci woon ñu dugalaat ko ci bu nga xam ne règlement intérieur dina baax loolu bi mu paree ci lañ ko jox président assemblée nationale président assemblée nationale aussi gis ko woote biro bi ne leen jot naa kii bureau bi aussi d'accord ci ñu def seen réunion wëlbatikuwaat jëlaat ko jébbal ko le président la république le président de la république war a joxe donc il un temps boo xam ne ci la war a joxe son avis donc ñu ngi xaar le retour donc euh, de l'avis du président de la de la république maintenant su ma ne ñu ngi xaar mooy ñun député yi mais mën naa am ci diggante bi entre deux président moom peut-être teg na ko ci table président de l'Assemblée nationale parce que jusqu'à présent ñun député yi le président de l'Assemblée nationale ne nous a pas encore informé ñu ngi xaar information boobu xam fan la ci toll moom mm-hmm. waaw euh, assemblée bi am na ñaari at est-ce que jamono bi euh, président de la république mun na tas assemblée nationale. xam nga loolu aussi ci biir règlement intérieur indi woon na débat. Mhm. mooy fi ñu ne woon ministre yi nga xam ne ñu ngi woon ci biir député yi wala ñu woon a siéger parce que yoon da leen dàqoon bu yàgg parce que dañu ne ci biir règlement intérieur bi ab ministre boo nekkee député tu as huit jours pour nga démissionner sa poste premier ministre sa poste ministre nekk député wala nga démissionner ci sa poste boole ñaar am na ay ministres yoo xam ne faloon nañ leen ku ci mel ne Aly Ngouille Ndiaye ku ci mel ni Aliou kii Ablaye Seydou ku ci mel ni Omar Youm bëri woon nañ quoi ñoo xam ne wax dëgg yàlla non Omar Youm sax euh, nekk doon ministre temps yooyu après nekk Ablaye Seydou Sow Aly Ngouille Ndiaye amoon na ay ministres yu bëri ci mm-hmm. nekkoon mm-hmm. léegi ministre yooyu ñëw assemblée nationale mooy jour bi ñuy installé assemblée nationale xoolaat leen image yi mm-hmm. ñu leen yéen waru ñëw fii ndaxte yéen bu yàgg ngeen war a démissionné te démissionné wu leen parce ñun li ñu liir ci biir règlement assemblée euh, règlement intérieur mooy l'Assemblée national commence à fonctionner à partir de son installation te ñu ngi ko installé le 14 septembre bu fekkee ñu ngi ko installé le 14 septembre c' à partir du 14 septembre ngay compter. Mhm. kon deux ans yi mu ngi war a mot le 14 septembre. kon man jàpp naa ne deux ans yi motagul le 14 septembre incha allah rek mën naa. kon daal président mënu ko tas fi ak 14 septembre jotul. xaw ma loolu sama xalaat la man. am nga la mhm. président am na ay ñu koy xelal ci yoon. Mhm. ñu koy wax ci wàllum yoon man fi may sukkandiku mooy ci règlement intérieur bu assemblée nationale mhm. règlement intérieur bu assemblée nationale donc loolu la wax te mhm. jàpp naa ne loolu mooy li nga xam ne moom la mais comme règlement bi dafa nekk règlement intérieur bu faux mhm. doo ci mën a continuer waat encore loolu aussi muy nekkaat beneen problème moo tax ñun euh, comme ni ñu ko waxee am na loo xam ne yoon moo ko yor am na loo xam ne ñoom ñoo ko yoral seen bopp muy conseil constitutionnel man jàpp naa ne tey l'avis du conseil constitutionnel parce que à chaque fois jiixi jaaxa bu amee ci wàllum interprétation des lois rek war nañu mën a delluwaat ci conseil constitutionnel laaj ko son avis moom mu wax li nga xam ne moom mooy xalaatam parce que man du ma juriste yow doo juriste keneen di juriste mais ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ dénk loolu weer bu dee ñu fay leen ndax loolu bu ñu jaaxlee ñun war nañoo delluwaat ci ñoom laaj leen moo xam ne ñoom dinañ jox seen xalaat mm-hmm. jàmm ñenn jàpp nañ amu leen majorité à l'Assemblée nationale euh, li gën mooy ñu tas Assemblée nationale Samba Dane euh, tas Assemblée nationale mm. prérogative président de la République la il y a ce la séparation des pouvar le pouvar exécutif le pouvoir parlementaire ak le pouvoir judiciaire donc le pouvoir exécutif prérogative yooyu constitution moo ko jox président la république ne ko xoolal heure bu la neexee yow yaay xool li nga xam ne mooy daw assemblée est-ce que baax na pour doxal réew mi walla baaxul pour doxal réew mi est-ce que mu ngi participer ci liy doxal mi wala participer ci liy dox dox réew mi su boobaa yow tu as la large latitude. Mhm. pour nga tas ko. Mhm. mais man damay jël ñaari baromètre bu ñetti baromètre. baromètre bi may jël bu njëkk mooy assemblée nationale. c'est le peuple en tant que tel maanaam ñoom ñu représenté askan wi. Mhm. parce que ay député lañ moo tax ñu ne député du peuple. mais comme peuple bi élection présidentielle yi jàll dafa voté dès le premier tour presque à cinquante cinq pour cent kon yàpp naa ne volonté nekkatul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk assemblée nationale nekk fa parce que ñooñu amoon nañ candidat mhm. bu fekkoon ñoom loolu lañ bëgg ba tey kon ña fa nekk day continuer ak ñoom neen continuer ak ñoom mhm. te defu ko mhm. niñ ne dañoo nekk minorité pourtant minorité boobu nekk assemblée national moom la fa voté à 55 pour cent pour mu nekk président la république donc kon jàpp naa ne peuple bi ñooñu la àndal muy benn beneen fait bi mooy débat d' orientation budgétaire bu fekkoon dañoo nekk ci assemblée nationale bu objective assemblée nationale boo xam ne débat politique intéressé wu ko li ko intéressé wu mooy réew mi jëm kanam lu toll ni débat d'orientation budgétaire ñoom du ñu mus a taxaw pour ñu baare ko kon ni ñuy taxaw pour ñu defar ko ndax Sénégal jëm kanam te dañ koo baare mm-hmm. mu nekk beneen problème ñetteel bi nag mooy wax dëgg yàlla ay la yéwén mm-hmm. assemblée nationale bi bañ commencé bu léegi ay problème rek la ñuy am ci biir assemblée nationale bi lañ gisee ay mu dugg génne opposition ba set wecc pour ñu installer le président de l'Assemblée nationale kon man jàpp naa ne man sama xel bu sama xalaat bu gàtt ak sama gis-gis assemblée boobu reflété maanaam waneetul li nga xam ne moom la Sénégalais yi bëgg mhm. kon nañ jox Sénégalais yi beneen opportunité ñu won leen comme ça ñoom ñu fal assemblée nationale bi nga xam ne moom lañ bëgg mhm. comme président am na droit boobu moom mooy xool nag waaye moom nañ laaj Sénégalais yi li nga xam ne moom mooy seen xalaat par rapport ak mais est-ce que amul ay risque aussi bi ngeen euh, euh, na daanaka ñetti weer am na Sénégalais yu commencé am yeneen gis-gis est-ce que ngeen bëggee ñu dem euh, coûte que coûte aux élections ñun du man loolu wax naa ko ba tey mm. du man maa bëgg wala bëgguma président de la République moom mooy xool par rapport à ça ak sénégalais yi mmh. maintenant comme li nga wax interprétation yi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko mm. ñenn ci sénégalais yi lañ waaye béykat bi nga xam ne moo doon jënde saako engrais vingt cinq mille mm. te balaa ma ko gis sax mu am problème tey mu koy jënde neuf mille francs jàpp naa ne kooku interprétation bu positive li mu mm-hmm. béykat bi nga xam ne da doon bëgg a gis jiw njéej gis jiw te mënu koo gis mm-hmm. te tey mu gis jiw mm-hmm. ba mënu koo jël ba doyal jàpp naa ne tey kooku moo am na beneen interprétation ki nga xam ne bu xëyaan day am coono bu rëy rëy rëy rëy rëy pour mun a dem tool wala pour mun a parce que problème mu dund te bi am na lu tuuti luñ ci comp loo xam ne na ko mun a jàppale jàpp naa ne moom mooy am interprétation maintenant ki nga xam ne nag daa bokkoon ci beneen boor bi beneen régime ñëw su ko neexee moom interprétation bu ko neex parce que chacun est libre d' avoir une interprétation mhm. mais li ma jàpp mooy réew mi mhm. le président la République li mu ci war a def mu ngi koy def mhm. mu ngi ciy góorgóorlu baax a baax a baax rawatina ci mbéy mi rawatina ci sàmm mi rawatina ci wàllum économie loolu moom jàpp naa ne alhamdulilah rabbil alamin donc na gën a jëm kanam daal d' accord dañuy génn assemblée nationale wax ci actualité également bi nga xam ne moo jëm ci polémique bi am ci port voile bi nga xam ne moom la ñu wax ci école ci l'école yi mm-hmm. premier ministre yëkkati woon ay kaddu kaddu yooyu nag mu am coow bu dul jeex yow déjà nan nga jàngatee coow loolu ñu def ci port voile bi ak li nga xam ne moom la kaddu kaddu yi nga xam ne moom la premier ministre yëkkati est-ce que mënoon nañ fi yegg si est-ce que mënoon nekkul woon lu ñu mënoon éviter également euh, sama benn professeur mm-hmm. euh, da doon wax ne Massamba Dieng mm-hmm. mu ne Sénégal mooy réew wax sa xalaat. nit ñi dañuy xëy rek ku nekk wax sa xalaat par rapport ak domaine boo xam ne maîtriser woo ko sax. Mhm. réew moo xam ne ku nekk da ngay xëy rek a neex nga wax jël mbir yóbbu ko foo xam ne sax daanaka eggu fa. Mhm. Euh, le président Ousmane Sonko ku ko xam-xam ne dafa juddoo ci famille boo xam ne famille culturellement sénégalaise la mhm. diggante séeréer pël ak joola kooku ku ko xam-xam ne c'est un vrai sénégalais c'est le prototype du muy benn. ñaareel ba nga xool environnement géographique am demal dans la région de Ziguinchor dans la ville de Ziguinchor jàpp naa ne bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo ëpp ay chrétiens ci réew mi mu juddoo fa yaroo fa màgg ak ñoom euh, astafurlah euh, mu yaroo fa parce que mu ngi juddoo euh, Thiès donc yaroo fa màgg ñoom yàgg naan ak ñoom nga lax yàgg def ak ñoom leneen ak leneen loo xam ne ñoom ñoo ko bokk mooy entre les de religions. Mm-hmm. le président Ousmane Sonko ku ko xam-xam ne il est tellement tellement respecté doomu aadama tellement respecté religion yi respecté doomu aadama par rapport ak ñoom seen gis-gis ak seen euh, fois donc man jàpp naa ne bu ñuy wax dañoo war a wax ci nga xam ne mooy wax ci wax ji mooy la on parle de l'école sénégalaise et parle de l'école sénégalaise ça n'a rien à voir avec parler de la religion il faudrait que nit ñi bañ jël benn débat glissé ko yóbbu ko feneen te Sénégalais loolu la ñuy def maanaam da ngay wax ci guy gi ñoom ñu jëlee guy gi bëgg ko transformer def ko Dakar te loolu mënul nekk il faut ñu wax ci guy guy mooy la moo naa on a un système éducatif et dans ce système éducatif on a le privé on a le public et que l'État détermine la politique de la nation mais aussi l'État détermine la politique éducative et dans cette politique éducative le premier moom mooy exécuter le premier ministre day wane gis-gisam par rapport ak éducation ni ñu ko war a doxale par rapport ak école yi ni ñu ko war a doxale par rapport ak école yi ku nekk la nga ca war a am nga am ko parce que écoles yi duñ ay école malienne duñ ay école gambienne duñ ay école mauritanienne ay école sénégalaise lañ comme ay école sénégalaise lañ ñun sénégalais yi ñoo ci war a mën a toog waxtaan suñu biir xool ku nekk la nga xam ne moo ci sa àq ak sa yelleef ñu jox la ko débat bi foofu lañ ko war a ñun xool suñu écoles yi est-ce que écoles yi ñu ngi répondre à nos besoins est que tey bu ñu nee immigration clandestine lan moo ciy roolu école est-ce que tey bu ñu nee agriculture lan moo ciy rôlu école autosuffisance alimentaire lan moo ciy école souveraineté alimentaire lan moo ciy rôlu école donc tey bu ñu nee civisme lan moo ciy rôlu école tey bu ñu nee yar lan moo ci rôlu école mhm. lan moo tax tey xale yi génn ci biti ñii di jamante paaka institution lan moo ciy rôlu école mhm. loolu mooy le vrai débat loolu la war a mën wax te le président Ousmane Sonko ci loolu lañ leen di invité pour à ce que ñu assainir les écoles am des règlements intérieurs dans les écoles boo xam ne ñun Sénégalais ku nekk dañ ciy gis seen bopp mais c'est pas un débat religieux et encore une fois de plus je suis offusqué d'entendre ñu ay débat religieux mais le président Ousmane Sonko ne parle pas d'un débat religieux mais est-ce que premier ministre Ousmane Sonko mënuloon éviter on sait ce qui s'est passé en 2019 tout ça est-ce que nekkul woon loo xam ne aussi mënoon nañ dox ci suuf ñu réglé ko moom mu éviter di ko wax ci place publique parce que gis nañ quand même André Latir di bind euh, daanaka ñoom ñëpp solidarité lañ daal di def aussi pour tontu kii di premier ministre est-ce ko woon éviter wax ko ci penc mi aussi même bu fekkee dafa am ñu ko laaj euh, dans l'épopée du Kajoor mhm. Lat da doon wax mu ne à la Linguère ne ko le blanc demande au Kajoor de sortir du Kajoor on ne peut pas le premier ministre parle de la politique de l'État le premier ministre parle de l'école maintenant si le premier ministre parle de l'école yow yaa war a am dégg-dégg ni kii école lay wax mais ki nga xam ne dafa am beneen dégg-dégg ni kii ci religion lay wax jàpp naa ne mu ngi nax boppam le premier ministre ne parle pas de religion le premier ministre parle encore fois de l'école du règlement intérieur de l'école de l'école sénégalaise et de la politique éducative du Sénégal te loolu incha allah rabi na di wax. Mm-hmm. Euh, critiques yi noo ko gisee euh, coow li am na de honorable coow li am na y a eu des critiques quand même ah dañuy jàpp ne premier ministre à chaque fois que mu yëkkati kàddu wax rek quand même ça crée la polémique euh, est-ce que aussi euh, noo gisee loolu est-ce que c'est juste des gens qui veulent que di ko dëkkal fu mu wala wala c'est le premier ministre qui qui est qui est polémique en quelque sorte. je ne je ne pense pas je hmm. j'emprunte les paroles de Babacar Justin Ndiaye. oui il disait que le président Ousmane Sonko s'il attaque il tient boo xam ne dafa dëggu li mu gëm loolu lay wax parce que dans ce pays là bu ñu ko bëggee construire il faut ñu construire ko ci dëgg mm-hmm. bañ ko construire ci naxante bañ ko construire ci loo xam ne ay naq sa la mais li ñu ko war a mooy ñu toog waxtaan bokk ndey ko bàyyi xool li nga xam ne mooy jëriñ réew mi mm-hmm. ñun ñëpp ñu tànn ko def ko mais bu ñu làqatu ci ay gannaaw ay alibi di am lu ñuy wax. Mm. ñenn ñi nag c' est comme on dit c' est des mauvais perdants. Mm. et un mauvais perdant comme ni ko wolof di waxee rek gémmiñ guy nàcc moom du wax jàmm. Mm. donc jarul ñu leen di ñu leen di topp sax quoi. Mm-hmm. parce que ñooñu réew mi ñoru leen. Mm-hmm. parce que réew mi bu leen ñoroon tey instant jàpp naan ci leen la wax loo xam ne du loolu. Mm-hmm. mais donc moo tax ñu ne topp ci la gannaaw président Ousmane Sonko di critiquer mais moom day jëf. xam nga wax ak jëf bokkuñ. le temps de l' n' est pas le euh, kii.

quand même vraiment benn débat boo xam ne gis nañu réew mi yëpp dañ ciy dañ ciy concentré wu. xam nga déjà euh, comme on dit yéenekaay boobu il a donné un avis subjectif un avis subjectif mooy Maldé dafa xees Samba Dang dafa ñuul. donc xeesaayu maal man moo ma dàqal ñuulaayu sàmba dang donc amul benn critère boo xam ne objectif teg na ko donc c'est son avis man je le laisse avec son avis. Mm-hmm. parce que moom moo ko jël na jël l'entière responsabilité donc de son avis. Mm-hmm. et taxawaay euh, président de la république par rapport ak polémique bi jàpp nga ne daf ci war a addu mu dem seeti leen wala jaru ko. ah no laa nag sama degré d'information eggul foofu. Mm. en tout cas je que. comme ni ma ko waxee je l'ai dit dans un article. Mm-hmm. Euh, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye c'est un iceberg. Ousmane Sonko c'est la partie visible de l'iceberg Bassirou Diomaye Faye c'est la partie invisible de l'iceberg et ñoom ñaar ilaa yow mi diin ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay c'est des cousins germains mm-hmm. te li leen boole bari na bariwaay boo xam ne mm-hmm. pour nit mën cee dugg wala nga xam ci dara da ngay nax sa bopp mm-hmm. ñi leen gën a jege tey muy seen soxna sax xamuñ ñoom ñaar leen boole te xam naa ne ñoom ñaar ca lañ nekk di ci liggéey muy réew mi mm-hmm. yàlla xam na li tax mu teg leen ci bopp réew mi mm-hmm. kii nekk président kii nekk premier ministre la a ko doxal et les opposants qui alimentent ce débat lan mooy seen intérêt ci mbir mi waaw parce que loolu lañ bëgg parce que xam nga comme li ñuy wax bi ñuy soog a commencé kenn waxu doon ci Bassirou Diomaye Faye tout le monde tirait sur le président depuis sa radiation jusqu'à présent amul lu ñu fa waxul Sonko rey sax am na sax ñu toog ne ko war a rey ndeysaan am na sax ñu toog wax loolu mhm. faalewu leen est-ce que boobu wax nañ ci Bassirou Diomaye Faye parce que ça ne les intéressait pas Ousmane Sonko moo leen intéressé woon mhm. yàlla di def yàlla di def ba ñu ñëw ba tey avec le génie politique du président Ousmane Sonko mhm. ñu ñëw le président Ousmane Sonko def de telle sorte que le projet est mis au pouvoir de telle que Pastef ñëw au pouvoir léegi nag amatuñ benn pexe xamuñ nan la ñuy def mu ne nañ leen fexe boo féewalee leen mhm. ba nga xam ne bu ñu leen féewalee ñoom ñaar bu defee pouvoir bi dem côté mais incha allah rek mënuñ leen féewalee mhm. ndax le pouvoir est au-dessus donc des hommes mais ñoom ils sont au-dessus du pouvoir c'est pas le pouvoir qui les intéresse mais c'est le pays qui les intéresse mm. c'est pas le pouvoir qui les intéresse mais c'est euh, les Sénégalais qui les intéressent mm. c'est pas le pouvoir qui les intéresse mais c'est la vie quotidienne des Sénégalais qui les intéresse te mm. incha allah rabbi ñoom ñaar liñ ci mën yëpp dinañ ko def bu Sénégal jëm kanam Sénégal ñoŋ parce que ñoom ñaar yàlla moo ñuy indil te incha allah rabbi liñ ci mën a jàpp nañ ci jàpp euh, des fois des quand euh, yi ndaw yi di dund gis nañ bu muy def bu muy samp garab ci padduwaa bi mu ngi koy mu ngi koy waxaat mooy ndaw ñi ñu ànd ak patience ndaw ñooñu tey jii nii ñu bari dañoo am yaakaar ci moom et chaque fois moom buy wax sax dafay wax ak ndaw ñi euh, tey lan nga jàpp ne aussi moom la ñu war a gën a mën a baral ngir ndaw ñi daal di si gis seen bopp on parlait de de l'immigration clandestine ndaw yu bëri instant bi aussi ñoo ngi génn réew mi di dem Samba da nga sa xalaat par rapport à ça. Euh, en 2000 2002 2003 si je ne m'abuse mhm. Omar Pène dafa am benn woy bu mu woyoon mhm. mooy immigration clandestine jaraluma li jaraluma lee donc boo xoolee. donc bu ñu ko jëlee ba léegi ça fait plus de vingt cinq ans kon c' est pas un phénomène nouveau. Mm-hmm. bu fekkee Omar Pène depuis vingt cinq ans mu ngi doon avertir kon ça veut dire que c' boo xam ne yàgg na te fekk nañ ko fi et c' est un euh, à quatre vingt pour cent voire quatre vingt dix pour cent euh, qui a des causes économique mm-hmm. maanaam les gens suivent les ressources nit ñi. Mm-hmm. koom-koom bi la ñuy topp. nit day jóge mbir kilaan béy ba pare nawet moom cent 400000 ne baal ma dem Dakar dem wuti ma ci yokk su ma ñëwee jaay bu ñëwee Dakar doxut wala affaire yi xaw a jaar yoon mu fexe mu amoon sax néew mu dajale ko. Mm-hmm. pour génn dakaar dem bitim réew. Mm-hmm. kon gis nga ni mu transhumé jóge na Mbirkilaan ñëw na dakaar jóge na dakaar bëgg naa jéggi géej pour dem ci bitim réew lu tax. Mm-hmm. parce que les ressources naturelles sont pillées. l'Afrique est victime de trois cent cinquante années de colonisation. et cent euh, de traite négrière cent cinquante années de colonisation cinq cent ans yoo xam ne l'Afrique a été pillée prenez David Diop. donc da ngay boo ko liiree da ngay xam ne l'Afrique a été pillée ko dañ ko dañ ko dañ ko ŋàcc ba mu set wecc africains nag dañuy suivre ces ressources mais maintenant le président Ousmane ko bi mu xamee ne lii du sotti dafa ne ñun nañ ñëwaat suñu suñu gox toogaat suñu gox investir suñu gox gérer les ressources naturelles de nos contrées moo tax sax ñuy wax renégociation par rapport donc au contrat pétrolier mm-hmm. parce que nit ñi seen am am bu ñu ko gérer rek na sotti tey da ngay jël lu wel ne wàllu mbéy bu ñu fexe woon bo du ñu xëy ndekkee Ukraine ak Russie añee Cambodge Siam wala Pakistan mm-hmm. reere itali wala Maroc euh, wala Maroc jàpp naan réew mi ne jëm kanam bu ñu mënoon xëy di ndekkee Sénégal añee Sénégal reere Sénégal mu des ñu dem jaayi ko feneen su boobaa na sotti mooy lan mooy il faut ñu dellu ci agriculture dellu ci élevage dellu ci pêche parce que loolu moo ñu jox ressources naturelles yoo xam ne kenn xamul li mu toll matière première boo xam ne kenn xamul li mu toll jeunes yi ñu fexe am le maximum d' industrie ba nga xam ne dañuy dem ci vers l' industrialisation avoir de la matière première mu bari trop nga yóbbu ko def ko un produit industriel nga transformer ko la donc vers la transformation mu nekk un produit fini hmm. nga jaay ko jëlal madd rek tey hmm. wax ma ñaata usine madd ñoom Sénégal amul amul benn usine madd boo xam ne da ngay génn fii ñun la bii jus madd la made in Sénégal mu ngi nii pourtant matière première mu ngi fi ñaata màdd mooy <laughs> nëbb Casamance mango ñaata moo fay nëbb hmm. maanaam kon ñun depuis 60 ans amuñu benn benn benn pas boo xam ne posé nañ ko vers l' indépendance économique de nos pays xam nga man à chaque fois ñu wax 4 avril indépendance indépendance. Mm-hmm. mais nous n'avons pas d'indépendance jusqu'à présent nous sommes dépendants jusqu'à présent. Mm-hmm. parce que lu tax ñu sommes dépendants on exporte plus de 2 millions de tonnes de riz. Mm-hmm. ça veut on importe plus de 2 millions de tonnes de riz on importe du blé. ainsi de suite ainsi de suite ñu wax indépendance c'est pas une indépendance une indépendance doit être une indépendance économique d'abord une indépendance su amee indépendance économique am indépendance alimentaire su boobaa nga soog a wax indépendance donc nous devons aller vers ça mm-hmm. et le projet nous tend vers le président Ousmane Sonko travaille à ce que les jeunes puissent avoir du travail mm-hmm. parce que nag Pastef tey les jeunes ñoom ñoo ko yore mm-hmm. moo tax je rends hommage donc à la JPS à la jeunesse patriotique Sénégal parce que ñoom ñoo porté projet bi tey ñun xam nañ bu baax a baax a baax ñi nga xam projet bi bi ñuy commencé à la base foo dem ñu ne xii yéen kay moom paa ak maire yii ñun kay seen parti bu baax na parce que boobu médias yi jaxase nañ ñu ak li nga xam ne mooy askan wi mm. ay terroriste lañ mm. ay jihadiste lañ mm. ay rebelle lañ ay lu nekk wax nañ ñu ko fi mm-hmm. lu nekk jiñ nañ ko le président Ousmane Sonko jeunes yi jóg dugg ci dëkk yi dugg ci àll bi défendre le président Ousmane kon tey bu ñu ñëwee ba projet bi nekk donc en exécution ñoom ils sont les premiers à y bénéficier donc moo tax ñu war a créer beaucoup d'emplois pour eux et je sais que on va aller vers cette transformation systémique vers cette transformation bi dina mën a jël jeunes yi. donc euh, jàllal li nga xam ne mais la aussi y a les ñoom ñu ne dañuy amal man euh, marche gis nga aussi euh, ñu bëri ah ñoo ngi commencé di yëngu. Mhm. am na benn benn quand même confiance bi ndaw ndaw yi joxoon am na ñu commencé aussi di kii ñooñu nan la ñu mën a def. ba gëmlewaat leen aussi que nañu ànd ak patience man loolu mooy sama sama vrai. Mais, vraiment inquiétude mais mais ñoom. Mhm. ndaw yooyu noonu surtout les marchands ambulants. ma leen di gërëm au passage di gërëm leur courage au passage. Mhm. di leen wax ne am jom rek moo tax ñu nekk ay marchands ambulants di rey seen bopp ci mbedd mi pour mën a dem sukkali seen dëkk sukkali seen waajur mm. tey boo jëlee marchands ambulants yooyu ñu ci bari bari bari bari bari bari tey mm. Saalum lañ dëkk wala Bawol wala feneen mm. dëkkuñu sax biir Dakar maintenant il faut ñu comprendre une chose mooy que ni am na ay politique yoo xam ne nit ñaa ngi koy teg pour tey ñu man tey su ma jëlee fu mel ni Mbirkilaan mhm. jël fu mel ni Maabo mhm. imaginel tey ñun li nga xam ne soxla nañ ko ci xar mhm. ci Sénégal bu fekkoon tey luuma Mbirkilaan loo fa soxla ci xar da ngay am xar cinquante mille wala soixante mille wala soixante dix mille xale yi di ko fa def jeunes yi di ko fa def di ko jaay est-ce que tu penses que dinañ ñëw Dakar fii def marché ambulant non xalaatuñ ko sax tey bu ñu fexoon ba jeunes yi tey seen bopp di béy noor di béy nawet mhm. am toolu dër mhm. dëkk bu mel ni Médina de yi mhm. nga xam ne dañ doon béy noor di béy nawet seen forage mu ngi paan wax naa ko le ministre Cheikh Tidiane Dièye maa ngi ko koy seen forage bi wax naa ko waxati ko waxati ko parce que ne c'est pas Médina de Gouy tout simplement mais nga jël Médina de yi euh, nga jël ay Noumaan ñun ñëpp ay dëkk la yoo xam ne dañ doon yëngatu ci wàllum dër ndox rek lañ soxla nañ leen jàppale ci ndox seen forage paan na nañ leen defaral yooyu yëpp donc dañuy bu bi paanee amatuñ luñ béy mais dañuy def exode rural mais nañ fexe ndox am ci dans les contrées bu ndox amee dans les contrées yàlla xam na jeunes yi dinañ retourner béy ci seen dans les contrées dinañ retourner def li nga xam ne mooy agriculture mooy élevage dans les contrées vol de bétail dañ mm. ci góorgóorlu baax a baax a baax ba nga xam ne jeunes bu ñu retourner mm. am seen gétt mm. te bu ñu amee seen gétt dañ ciy génn mm-hmm. donc loolu politique boobu la bëgg a teg euh, donc à la base mais politique boobu nag doo xëy xëy en 3 mois 4 mois nga ñëw teg ko kon ñi di wax yëpp dañuy caaxaan mais liñ leen bëggal am yëpp li ma bëgg yëpp ndëkk laa ko bëgg moom dafa mel na nga da mi daal da nga ko bëgg de da nga ciy yëngu lu bëri réew mu fi jag hmm. mbay ak càmm moo la jagal tey boo xëyee mën ngaa lekk lu ñu béyut ndékki <laughs> non non boo añee est-ce ngaa lekk lu ñu béyut hmm. wala lu ñu sàmmut reer est lekk lu ñu lu ñu sàmm hmm. maanaam nit ñëpp ci mbéy ak sàmm la ñuy dund <laughs> moo tax nag mooy secteur proteur boo xam ne kenn xamul ni mu toll tey ensuite beneen bi mooy la pêche là vous pensez que si les mers avaient autant de poissons nit ñi dañ dem seen yoon parce que on a pillé la mer. ñan ñoo ko pillé mooy les accords de pêche là. Mhm. il faut ñu arrêter les accords de pêche. Mhm. tey boo demee Birkelane fajar 4 du matin la sama xarit moon ñang di dem Kaolack. Mhm. yore 404 mbaaram. pour euh, yenu jën ba nga xam ne peut-être jóge na Elinking wala jóge na euh, Kafountine. wala jóge na Jifeer wala Joal. mu teg ko ci 404 mbaaram pour mun koo dugal euh, Birkelane. boo ñëwee moo dugg ne taxaw ci marché ba yore saretam jël ko dugal ko ci charrette bi pour mun ko yóbbu Wende wala yóbbu ko Saara Ndiougaare wala feneen. Mm-hmm. c' est parce que y' a pas de poisson. Mm-hmm. vous pensez que bu fekkoon aquaculture tey développé na. Mm-hmm. poisson bi am. fu nga fu nga ne nit ñi nekk fii di am euh, problème de sécurité alimentaire. mais non il faut qu'on repense nos politiques économiques te ñu ngi ci. ci loolu lañ nekk nag mais loolu nag c' est pas en cent jours. un pays pour le développer il faut un quart de ñëw cent jours déjà euh, euh, vous avez vu le débat Euh, les auditions. parce que ñu dénkoon il faut ñu xool l' état des lieux. Mhm. te en une année sax mënoo def état des lieux. Mhm. parce que kii randal. day defar ay circuit yoo xam ne. Mhm. bu randalee yow doo xam sax fan la. pour nga retracer circuit yooyu noonu. day métti méttiwaay boo xam ne. tu es obligé au moins un an deux ans pour nga mun koo teg ci yoon. te bu ñëw def chasse aux sorcières. dañoo bëgg a teg lépp ci yoon lépp jaar yoon bu ku nekk xam ne Sénégal yi xam ne déedéet yeexul hmm. gis nga foo fekk dénk leen ma dénk leen ma hmm. boo déggee sa loxo ndeyjoor hmm. dénk leen ma dénk leen ma dénk leen ma tegal sa loxo ndeyjoor nga yëkkati seen loxo càmmoñ saytu leen ma saytu leen ma saytu leen ma su ko defee bu ñu la dénkee dañ la war a saytu nit ñi nag ñu ngi saytu du man maay saytu du yaay saytu du le premier ministre saytu du le président mooy saytu yoon mooy saytu yéen ko faral di wax yéen journaliste ngeen ne le temps de la justice n'est pas le temps des des hommes oui la le temps du justiciable donc de comme temps de la justice nag mm-hmm. nañ bàyyi la justice là la séparation des pouvoirs mm-hmm. le pouvoir judiciaire est en train de faire de ses enquêtes mm-hmm. le pouvoir judiciaire est en train de faire de ses auditions nañ ko bàyyi ndax xamul tax bu subaa Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi ñun ñëpp ñoo xamante ay goro lañ ay dëkkandoo lañ ay lépp lañ danga nga jàpp ni tey ay dëkkandoom jóg ay gorom jóg sëriñam jóg ne bàyyi leen ko parce que da nga nangam da nga koy singil affaire déedéet na leer dañ ko def lépp jël la temps tout le temps nécessaire mm. ba mu jaar yoon ba ñu teg ko ci yoon yoon mooy génn ni diw de lii ak lii ak lii mm. nga xool ne ah ay la yoon diw lii kat yaa ko def mm-hmm. man sama yoon nekku ci mm-hmm. Mm-hmm. su boobaa lépp leer lépp jaar yoon beneen point bu ñu jeexalee mooy euh, limogeage euh, docteur Cheikh Dieng gouvernement bi jub jubal jubante la ñu woote waaye gis nañ sax ay ñooñam ñoo ngi génn ñoom ñuy accuser autorités yi Euh, est-ce que tamit coow loolu mënuñu ko woon éviter docteur Cheikh Dieng quand même bokkoon ci coalition Diomaye président euh, yow noo gisee mbir moomu doy na doy waar de même pas trois mois ñu jëlee ko fa euh, te mu bokkoon ci yéen comme yaa ngi koy wax nañu saytu xool balaa ñuy jox nit ki est-ce que nekkul woon tamit casting bu baaxul la docteur cher Dieng. xam nga bu buñ ne est-ce que rek on se pose de questions. Hmm. mbir ñaara ko séq ñaar ñoo séq mbir mi ki ñu nommé ak kii nommé. kii nommé bi muy nommé wax dëgg yàlla man tàgguwuma yëguma tinuma damaa xëy xëy dégg mu nommé la Degauche Dieng bi mu koy dindi aussi tàgguwuma yëguma tinuma damaa xëy xëy gis ñu dindi ko man nag damay observé dégguma ba tey docteur Cheikh Dieng mu ne diw de dafa maa dindi parce que lii moo tax mu dindi ma ak lii ak lii ak lii mm-hmm. ki ko dindi aussi dégguma ba tey mu ne diw de dindi naa ko parce que lii moo tax ak lii ak lii ak lii comme ñaar ñooñu ba tey waxaguñ wax dëgg yàlla du ci mën a wax parce que su ma ci waxee nekk naafiq te bëggumaa nekk naafiq mhm. dama bëgg lépp lu may wax ma mu lekk lu ma leer loo xam ne le concerné lui même moom moo ko wax mhm. à partir de ça laay mën a wax li nga xam ne mais jub jubal jubante bi moo ko yóbbaale tamit ah est-ce que de on se pose des questions on se pose mais est-ce que c'est pas aussi ba tey ci questions yi parce qu'on va poser des questions c'est mhm. pas un message aussi ou nekk xam yàlla comme ni ko boo defee benn weer wala ñaari weer ñu xam ne mbir mu sottiwut wala am na loo xam ne xaw na cee doy waar ñu dindi la fa indi sa morom pour ne parce que l' intérêt c'est l' hmm. euh, foofu ci assemblée nationale bokk ci parti politique bi di Pastef les patriotes moom la ñu dalaloon tey mu nekkoon suñu gan ci matinal bi waxtaan bi amoon na solo honorable ñoo ngi lay jaajëfal bu baax di la hmm. ci wuy si bi nga xam ne wuy si nguñ en tout cas maa leen di gërëm a baax a a baax du département de Birkina encore une fois de plus di di donc gërëm la Saloum de manière générale encore une de plus la région de Kaffrine mhm. di leen wax ne ñun suñu doolee lenn la mhm. mooy mbéy ak càmm mhm. nañ ci gën góor góorgóorlu nañ gën a góorgóorlu ci mbéy mi nañ gën góor góorgóorlu ci càmm mi grenier du Sénégal ñun jàpp nañ ne war nañ ko mën a nekk muy la région de Kaffrine et la région de Kaolack mhm. donc nañ ci gën a góorgóorlu lépp lu ñu ci mën a def rek nañ ci gën a góorgóorlu man de ci loolu laa leen di ñaax de wax dëgg yàlla hmm. du ndaw yi kese de hmm. képp ku mën rek hmm. demal lu tax mm-hmm. tey ku nekk rek mm-hmm. soo béyoon un hectare deux rek da yokk productivité bi mm-hmm. maanaam Sénégal bu nekkoon exemple un million tonnes de mil ñëpp béy mën nañoo dem deux millions de tonnes de mil un million euh, kilo bi day jar quatre cent boo ñëwee deux millions kilo bi ñaata lay jar deux cent gis nga ni muy wàññeekoo pouvoir d'achat Sénégal bi day gën a yokku Euh, dund bi day gën a yomb su ko defee nit ñi dañuy gën a mën dund bu baax a baax a baax hmm. loolu kese la donc moo tax ñu ciy ñaax honorable ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wuy si bi nga ñu wuy si ci matinal bi di matin bonheur ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom euh, Samba Dang nekk député foofu ci assemblée nationale bokk ci parti politique bi di Pastef les patriotes di ko gërëm bu baax di gërëm itam yéen ñi nga xam ne yéen ñu toppoon suba ba tey ci matin bonheur di leen jox euh, dig daje ëllëg incha ci beneen numéro matin bonheur di leen ñaanal yendoog jàmm